sang bu tedd bi di Serigne Mountakha Mbacké di ñaan yàlla mu may ko gudd fan ak wér monsieur le maire maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu conseil yi fi nekk yépp euh, di wax tuuti rek ci li mu fi jot a seetlu euh, boo leen amee seetlu bu yëf yi di jaaree yoon loolu dama koy wax ngir ki fi yëkkati woon kàddu sànq naan doon na rafet sous-préfet jël kàddu sax pour leeral waaye ma bëgg leen a wax rek ni mbir yi doxe bu fekkee da ngeen woote conseil municipal sama teewaay c'est de droit maanaam dama war a ñëw saa yu man soobee nag mën naa jël kan waaye bu fekkee yëf yi dafay tegu ci yoon munoo wax lu dul liñ fi waxtaanee te liñ fi waxtaanee boo ci waxee dangay ngay xaw a influencer vote bi donc nit ñi da leen bàyyi ku nekk ak sa xel bu fekkee lépp jaar na yoon ba ñu voté loo ci am loo ci dolli nga dolli ko ci noonu la mbir yi du war a tëddee waaye yëf yi dafa jaar yoon moo tax waxuma ci euh, li fi jot a am ci discussion nag dama ci indi tuuti leeral gis nga délibération maanaam bu ne délibération am na ba conseil bi daje ba ñu def lecture rapport bi ba pare li ci topp mooy débat bu débat jeexee ñu voté mais débat tekkiwul ne lu ñu teg ci délibération rek faaw nit nit ñi wax ci déedéet bu leen wanee lu leen doy bu ñu ubbee débat bi bu leen neexee kenn bañ a jël kàddu bu boobaa dañuy jàll directement vote donc débat bi ña indi délibération bi dañ koy posé waaye conseil yi ñoo ciy wax bu ci kenn waxul nag ñu dem fa c'est comme ça que mbir yi war a tëddee monsieur le maire bu loolu weesoo dama bëggoon wax rek fii conseil municipal Touba wax naa ko ci biir nekk dinaa ko wax fii nit ñi ñëpp dégg si composition maanaam ci ñi ko séq jàpp naa ne conseil gënu koo démocratique ndax fii képp kuy maanaam këru diine am nga ku la fi toogal képp kuy catégorie socio professionnelle yaa ngi xool leen conseil Sénégal danga dem conseil yu bëri doo gis ku fa toogal borom sareet yi mën ngaa ñàkk gis ku fa toogal commerçant yi parce que parti politique yi ñoom ñooy def seen choix te seeni militant ak seeni responsable la ñuy choisir bu fa amul catégorie socio professionnelle ñooñu duñ ci bokk ça veut dire quoi ça veut dire tànn na nit ñoo xamante ne bii dana leen ñëw leen fekkee fi ñuy nasee boo yàlla defee nag nga fekkee fa ñuy nasee la la war boo delloo ci sa mbooloo muy la war mbooloo mi diggante ak mairie bi bala cee kenn sàmm yow mi nga xamante ne bii yaa fi ñëw di toogal mbooloo moom yow yaay njëkk doon sàmm deuxième ville du Sénégal waaye loolu léegi tey mu jeex da maanaam fii ay ak ay at dañuy wax Touba première ville du Sénégal loolu moom loolu moom maanaam luy ñëw la ku gudd fan tuuti da nga fekk ndax na may màggee amul benn dëkk bu koy màggee te dëkk nag gis nga buy màgg day am ay soxla day am ay soxla dana soxla sécurité dana soxla bérébu fajukaay dana soxla béréb bu naanukaay dana soxla ay béréb ay béréb yu dul jeex bu fekkee état bi dafa ne dama jël ci sama ay pouvoir ma jox ko commune bi li tax état def ko dafa xam ne dafa njaboot mënul fu commune soxla mu ñëw fajal ko la nga xamante ni bii moom la commune bi war a jël di ko fajee soxlay askan bi du ko mën a génnee lu dul ci askan donc ña war a fay taxe nañu xam ne bu ñu fayul taxe ñu ngi suuxal commune bi ña ngi koy sooxeel ndax fii ñu wax ne deux milliards la PACASEN di joxe ñu ci sant bu baax di ko gërëmee administration communal bi dinaa si ñëw léegi mais lu euh, PACASEN joxe ci deux mille dix neuf deux mille vingt ak deux mille vingt et un mënoon naa génn fii. ba des ndax li fi nekk ci potentiel fiscal jegewuñu ko sax loolu nag monsieur le damay conforter yow li nga wax sànq loolu jar na toog daje càmbat ko waxtaanee ko xool yoon yi nga xamante ni bii moom la ñu war a maanaam euh, jël pour que loolu doon li tubaab di wax talon d'Achille yi maanaam soox soox ci doxalin bi ñu fexe na lañ koy saafara et là moi je suis parfaitement d'accord ci euh, le huit ba quinze ba le vingt ñu toog waxtaanee ko jéem a xool vraiment nan la ñuy jéem a génnee situation bi ndax li fi nekk si potentiel kenn xamul mu toll. li waraloon ndaje mi rek tey mooy dañuy doon wote budget commune de Touba deux mille vingt et nañ ko arrêté ko ci quatre milliards neuf cent millions loolu nag gannaaw bu ñu defee fii orientation budgétaire bi. ci ni ko sart yi waxee wa tëgg budget bi ci techniquement ci investissement ak fonctionnement ba arrêté ko ci 4 milliards 900 moom la ñu doon wate woon tey conseil municipal bi bi daje ñu wate ko à la l'unanimité donc loolu moo waraloon daje mi tey. boo gisee am na tuuti bees ci par rapport ak budget yi ñu daan wate am nañ yaakaar ci ne lool danañ atteindre suñu objectif cette fois ci ci at mi ndax dafa am benn appui bu am solo boo xam ne dañu ko seenu te intégré ko ci li ci ëpp ñëw na mooy pakaseen bi ci parti bi nga xam ne war nañ ko see jot deux mille vingt mille vingt et un deux mille bi dafa ñëw en ñëw na deux mille vingt et bi ñu ngi koy seenu bu ñu ko boolee ak li nga xam ne par rapport ak ñaari at yi moom la ñuy recouvrer yaakaar nañ ne dañu atteindre suñu objectif danañu am lu toll ni li ñu wate ci bés bi ci lu dul yenn jafe-jafe. xam nga marché bi keroog bi marché bi lakk deux heures de matin boobu mu tàkk ba bisab tey bii commune bi mosu fa jóg ba ne ba dañu fa affecté ñetti nit yoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey ñu ànd ko ak euh, représentant commerçant yi njiitu marché ambulant yi njiitu commerçant yi ngir di taxawu nit ñi nga xam ne ñoom la ci seeni alal yàqu. waaye bul fàtte ne du ay cantine moo lakk ay centre commercial ñoo lakk yoo xam ne ay kër privé lañ ak taabal yoo xam ne ñoo nekk ci kaw tali bi ay tabulier yooyu ñoo lakk du cantine marché moo lakk boo xam ne ne marché bi dafa war a jël ay responsabilité am jël cantine bi reprendre ko du cantine marché taabal la taabal la bu ne ci mbedd mi ak bitig boo xam ne nii ci biir centre commercial bi la nekk foofu la lakk gi amee ñi ngi waxtaan nag Euh, monsieur le préfet woote na réunion démb fii ñu xool centre commercial yi lakk ak tablier yi nga xam ne ñoo lakkale ak marché ambulant yi ñu ngi waxtaan ak ñoom pour délocaliser leen yóbbu leen ci marché gare bu mag ñu mën a nekk foofu en attendant centre commercial yi nga xam ne ñoo lakk forum civil dem na fa xool na ko mi ngi def rapport am xool nan lañ leen di joxe ordre ñu liggéey ak yan lañ ci war a càmbar bala ñu koo liggéeyal xam nga du commission yi am na des fois am na yenn comi président commission yoo xam ne seen absence dafa fés mais loolu réalité yi dëkk bi la dëkk bi moo am ay point yoo xam ne commune bi ci boppam ay kii ay këri kilifa lañ yoo xam ne baatu commune bi tuuti na lool ci ta teg leen ay daan wala mu sant leen ñu def wala mu ter leen mu bàyyi ñaar rek ñoo ko mën ndigal loo xam ne dafa jóge ci sëñ bi généralisé ñëpp war ko appliquer wala loi boo xam ne nii loi bi dafay jóg tegu ne lii mooy droit bi dañ ko war a def loolu ñaar yooyu mooy li ko man mais dafa baatu mairie bi dafa am soo xam ne bu fa àggee parce que mairie munul ñaari kër sësoo kii mu ñëw ne ko teg loi bi tegu na ko kii mu ne ko loi bi wàcc na loi dafay tegu tàmbalee fii wa ñëpp tegu ci kaw ñëpp ñëpp wa ñëpp def seen dawaat waaye nag di fayu ñii di bay ñii loolu mairie da ko mënul teyit lu yoon nanguwul loolu ñaar ñu bokk benn activité bokk benn infrastructure di di liggéey kii am centre commercial kii am centre commercial nga ne kii da koy obligatoire da yoon loi bi day tegu ci kawam kii dañ koy exonéré mairie mënul exonéré kenn état moo mën a exonéré loolu mooy gàllankoor bi nga xam ne moom la commune bi am moo tax mënul maasale ci nit ñi di di recouvrer li mu war a recouvrer yaakaar na ne gis ngeen ne yëg am nañ prévoir nañ deux cent cinquante millions ci forage yi nga xam ne problème mu manque d'eau bi nga xam ne mi ngi koy am ci màggal ak Touba parce que sëriñ bi moo joxe ndigal ne commune bi ak Maourahmati ak hydraulique ak effort ak administration yi nañu bokk ñoom ñëpp dugal seen loxo ci ndox mi ne ma surtout commune bi na ci dugal loxom bu baax te jàpp ci loolu moo tax ñu prévoir benn deux cent cinquante millions ngir forage yi ñu man cee ànd ak OFOR ak hydraulique ak maa u rahmati diagnostiquer réellement lan mooy problème mu forage bi lan moo tax pression bi amul lan moo tax forage yi di coupé buñ ko àndee diagnostiquer ko ba xam ne lii la commune bi lim ci man mu yëkkati ko def ko li état bi man mu def ko ci ñu def ko ba nga xam ne pro beneen màggal bu ñëwee yaakaar naa ne lii ñu daloon daaw dootuñu dal sécurité comme li may wax li ci commune bi man rek comme benn commune ci benn commune ci commune Sénégal yi buy def ay brigade gendarmerie ak poste police amul commune Touba fexe na ba am ñaari brigade gendarmerie yoo xam ne da ko loué équipé ko jox ko gendarmerie gendarmerie indi fa ay élément muy ndindi ñoo commune bee ko def Touba Belel commune bi bee ko def police yu guy mbind commune bi moo loué ay locaux maanaam équipé ko jox ko police police indi fa ay élément donc mi ngi encore toujours rappeler ministère de l'intérieur pare nañ pour fépp foo xam ne nii yaakaar na ne point la boo xam ne war na am poste police commune bi mën na na nañu seet local bu fa commune bi jël ne ko defar ko ba mu dëppoo sarti police maanaam mu équipé ko jox ko police police man faa yóbbu ay élément ngir mën a renforcer sécurité posé naa benn euh, conseil municipal bi ne leen dama bëgg da ñu daje le vide entre le vide et au 15 janvier waxtaan réfléchir ci recette bi ci nan la ñuy def ba mën a koo euh, mu mu mën a yokk mais rubrique bi du du problème bi dafay amul niche yi am na fi dama ne la budget Touba bu fekkoon ne ni Bambey ak Mbacké ak Diourbel di fayoo noonu la Touba di fayoo dañuy nekk ci diggante gàbb on neuf à onze million onze milliards neuf milliards à onze milliards mais malheureusement maanaam si spécialité dëkk bi ak kenn ku ci nekk am loo xam ne commune bi sañu ko def directement donc loolu moo tax loolu moo tax mënuñu àgg mais xam nga booy wote budget doo wote budget lii laa li mën a am ngay wote li war a am te mën a am loolu ngay wote doo wote ne lii laa mën a jot parce que euh, impôt ab loi la boo xam ne nii wàccul kenn donc commune nag nag munu ko uti munu ko dem suivi xam nga commune lan moo ko war ci budget tëgg ko ne lii nii la toll fii laa koy jële jox ko trésor piblique trésor public fii ne moo war a moo war a recouvrer maanaam ànd ak euh, administration bi ak force de l'ordre dem witti loolu indil ko commune du commune sax commune li man mooy lii initier ko xalaat ko xam ne niche bi am na fi maanaam wa def na ko ci budget bi wate na budget bi ab maire bi ab signé na ko jox ko sous-préfet mu approuvé ko mu jox ko trésor nekk problème mu sécurité logistique bu comme bu police ak gendarmerie loolu du affaire u maire yi xam nga maire lan la man police jox ko benn demande d'expertise ne ko dama bëgg nga appuyer ma ci lii mu appuyer ko ca loolu moo xam carburant la moo xam oto la moo xam moto la moo xam leneen comme ni maire bi def bi police ñëw ne dafa soxla ay moto ma jënd ay moto ñetti commissariat yi fi ne commissaire bu police bu nekk ma jox la benn moto pour nga mën ko faciliter booy defi constat wala def dara doo am jafe-jafe mais logistique bu police nag ak gendarmerie loolu du mairie séeréer